633 77 56 tey ñu fas leen yeneen andil xikma bu amati solo tukkee ci nit ku am solo mooy kenn ci mag ñi àndoon ak Serigne Touba doonoon ab taalibeem te liggéeyal ko ba Serigne bi gërëm ko ñu koy wax Serigne Mor Khadisy Serigne Mor Khadisy nag moo doonoon magi Serigne Malick Bassine si ñoom ñaar nag dañoo déggoo woon te dëppoo ba sëriñ bi tuddee woon leen benn xol boo am ñaari jëmm ba daana leen wax ne seen ànd bii de ak seen déggoo gi ak seen bennoo gi bu ngeen fi jiitoon alxuraan dana ko nettali dana leen tudd wax leen nit ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bëggoon na ngeen bokk ci ñoñam waaye man la leen sa borom dencaloon euh, sëriñ Mor Xarit Si nag defoon ku bari xekk ma lool ay waxamit da ko daan tënk waaye buñ ko masaana bëgg jariñoo nag dañuy ñëw ci rakkam sëriñ Malick Basin mu tinki ko li may faral di wax naan xikma nag day tënku yaa koy sëriñ Mor Khary Sy dafa waxoon ñetti baat yoo xam da koo tënkoon waaye muy baat yu rëy te riis dafa waxoon ne jàpp-jàpp wacci wacci def-def ah xamuñu lim ci jublu ñu ñëw laaj ko sëriñ Malick Bassine Sy rakkam mu ne leen dafa bëgg a wax ne jàpp leen ci yàlla bala leen a jàpp wacci leen àdduna bala leen wacci def leen ci bàmmeel bala ñu leen caa def loolu nag dafa rëy lool ndax bu dee bu njëkk bi moom mooy suñu borom tabaaraka wa taala dañoo bind ngir ñu jaamu ko rek ah kon ku koy jaamu ak ku ko jaamuwut faw suñu borom tabaaraka taala dana la jàpp ndax xul innal mawta allati tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum dee mi ngeen daw da ngeen di far dajeek moom ca suratul jumaa ah eh, nit ki bu demee ba ay bokkam ñàkk ci moom yaakaar dañ naan yàlla ci des bu ak ruuxam waddee ñu ne nañ ko jëbal boroomam kon kenn ku mën a rëcc suñ suñu borom tabaaraka taala amut kon nag nañ teel a jàpp ci yàlla di jëf ay ndigalam di wattandi ay teram tey nangu ay dogalam loolu mooy jàpp ci yàlla bu dee bi ci dëkk bi muy wacci wacci àdduna moom lu leer la ndax buñ xoolee siècle yi fi jaar bi mu sosoo ak léegi danañu wan ne suñu siècle bi it ni yi fi jaaroon rek lay mujj mel muy romb rek yeneen jaar fi ba keroog yàlla di fi jëlee àdduna ci coobareem moom rek moo xam kañ la Euh, moom tamit mag ñi alquran wax na ci lu bari yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci ahadis yu bare bare bare bare ci wëcc àdduna ndax àdduna amul solo waaye ci njàng mu gën a jege rek sëñ Bay Jaxate mi nga xam ne nii moom ay taalifam yuñ mën a dégg lay doon day wax ne bul faale kenn jëfal bul geesu kenn wéel ku dee ñu foog suuli fee del si wax ak ña fa des kóllëre mat la fas ak koo xam ne kii gorewul àdduna mi gorewul ku nekk lay xalamas duniyaa soxal na ku nekkub sox bu rëy di ko nekk foo sox ba tàkkee ba ñee rët mooy soxal ña fa des am na it fu muy fàttalee ñi fi njëkkoon a jaar te defoon àdduna kër fañ mujj dem nañ ba kenn xamatul sax ñooñu àndañu far day wax ne àdduna moo mën a ndax ndaw ndax na jépp ko xam ña doone buur ak baadoo looti sax anañu ña daa wasal seeni fas tey jàpp jaamaka max di jaayi jaamaka jiital moo ko xam anañu ku xam ña daa tëggi junjung woote ñëpp di ñëw ak xeebi baadooloo ko xasaanu ku xam ne daa tegi junjung woote ñëpp di ñëw ak gaay daa xeebi baadooloo ko xas anañu moo ña mbooloo daa war gàddu seeni fetal di sang kay sang tey jii nag ku xam anañu moo dox di wan deeluy xaree ko wasal akay biñaaroo ko dàkkuwu nit ku xam anañu ña daa rayu nit akay rayaloo ko jékki ci kaw di xulli ay gët akay xoolee ko anañu ña daa rayantee woo aw nit ñu xëy ne tirim di déglu seeni ndigal ñooñe ku xam anañu ñaraa bañanteeka bindanteeka yooli sëriñ ak ay iñaanaka ñaanoo ay ko xam anañu ñaraa weranteeka bojjantee gobar di xoloo dinaa nakay mandi moo ñooñee ko xam anañu moo yàlla moo bon ku koy def ak mujjam du rafet mboolem ñaraa def lu baaxul kenn xamul anañu ne dooni buur a kibaadooloo ngi bokk ne mes ci suusi gaa yi rëyoon a gaa yi sew anañu tuubal sant te wut jaajëf fa yàlla ju wér bul bokk mukk ci ñiineef ak xam anañu bu defee loolu wax ju am solo la ndax eh, képp koo xam ne yaa ngi ci lu baax nekk ci li nga war a nekk di jaamu suñu borom tabaraka taala ci alxuraan sunna di amal njariñ mbindeef yi boo fi jógee woon it day mel ni yaa ngi fi ndax ñi nga xam ne dañoo faatu ci yoonu yàlla suñu borom tabaraka taala nee na faatuwuñu ña ngay dund dund goo xam ñun ñoo ko yëgut wala taqulu li man yuqtalu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaun walakin la tashurun aaya téeméer ak juróom fukk ak ñeent ci suratul sëñ Tuubaa sax day wax ci nax ju ne eh, borom xam-xam yi moom buñ fi jógee it bañ na faatu nañu ñi ngi dund annaasu mawta wa ahlul ilmi ahyaa ñi amul xam-xam kay ñooy deewaay borom xam-xam yi ñoom ñi ngi dund imaam Shaafi'i day wax ne ñi nga xam ne nii dañuy amal njëriñ mbindeef yi ak di jaamu yàlla ak def lu baax ñoom buñ fi jógee itam seeni ngënee la nga fi ñi ngi dund te noonu it am na nit ñuy dund ci kaw suuf ba ñëpp yaakaar ne ñu ngi dund fekk dañuy dox rek waaye ñu dee lañ ndax amuluñ kenn jëriñ qad xaw qawmun wa ma maatat fadailuhum wa aacha qawmun wa hum fi nnaasi am waatu bu dee bu mujj bi nag nga xam ne mooy def leen ci bàmmeel bala ñu leen caa defit dafa leer nañ ndax sëriñ Tuubaa ka daana wax ne doomu aadama bu nekk yàlla taqale na ko taqale na la ak ñaari biir muy sa biiru bopp bi ak si biir bàmmeel sa biir bopp bi yàlla mi ko sàkk dana la dana dana dana wut loo ci def waaye sa biir bàmmeel nag loo fa defut doo ko fa fekk Sëriñ Tuubaa yi daana wax ne eh, bàmmeel de mooy mooy bàmmeel mooy barsaq ñaar nag moo fa am fuuyu ak mawu fuuyu mooy lu fa waaye am lu mu bari bari bari bari da ngay fuuyoo moom doo ci may kenn ndax moo kañ lay jeex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 kon wuy wi ñëw na gaañi leen toj ko bañ mën a jot ci buy bi ñëpp tiim ko ñi màcc ñi notari ñi njambaan ko ku féetewoo naa nit na ngeen seggal ko in uridu illa al islaah ma stataxta ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh ausu billahi min alsheytaani arrajim bismillahi arrahmani